non tiit naa loolu man ta ñàkk. ayca Moussa Ndoye Mbaye man est-ce que tiit eh, naa le requin man ko le requin lii taalibe Serigne Babacar Sy bi <laughs> Essa... Moussa taxawal. Guy Guy. Guy Guy. ana bool bool bi. Moussa kaay <laughs> Mbour Cheikh Mbacke Gadiaga am na moom mu tuddee Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma wallaay ETDR ETDR barki rasulaay waaye combat bi 15 minutes ak sama ñaari champion Moussa jàkkaarloo ak Sawar mais Mbaye yow loo yebee Moussa lan mooy seen problème mbay ñeme nga Moussa Ndoye mbay daje nga ak Moussa Ndoye ci ngénte yi xeex ak moom daje nga moom ci mariage yi daje nga moom ci gàmmu Mbaye lan nga yebee Moussa est-ce que xam nga Moussa Ndoye. Oh, Mbaye belle question. jërëjëf Serigne Touba. Akasa jërëjëf yow mi ko wax jërëjëf sant yàlla. julli ci yonent bi di gërëm sama ñaari waajur. di nuyu sama waa dëkk. waa Réfane. susuma nag fa ma dëkk. muy Réfane boox di nuyu képp koo xam ne. deretu bawol bawol muy daw sa yaram. maa lay nuyu. di nuyu mbëri bawol yi Saal bawol fils de BM fils de Kati ñom ñep ma leen di ñaanal di ñi deuy sama papa sama xarit Abdou Aziz Alé Ndiaye ma ngui koy nuyu bu baax di ko wax gis na taxaway bi ma ngui koy sant di ko di nuyu sama papa jey di ko sant di ko gërëm bu baaxa baaxa baax aw ma fayal ñi mandat Abdou sen Mor Baye Fall Ahmed Lagrose Maf gi Baye lat sama doomu ndey sama xarit ah Ndiabé <laughs> maa ngi nuyu sama gars yi daal ñi ma àndal ñëpp ah. question bi di leen ñaanal jàmm. kii sama grand la. mais loo ko ñemee la sa toll nii des ay 7 jours wala ay 6 jours jaratu wax ju bëri. Ah. mbay yaa ngi changé communication de. changé communication dina am mhm. parce que ñun. am na lu xew ci diggante bi ay xale lañ. Mhm. dañ doon ne ci làmb di def lu ñu neex. Mhm. mais dañ am ay kilifa léegi. bu ñuy wax dañuy xool baax leen ñuy wax kenn du ñu yóbbu. naa ñoo wax lii wala lii. mbay dafa mag dal ñi ngi nuyu wuli sunu garant. Mhm. mais mag ba do ngeen safal. combat ko ñaanal borom 13 victoires original tay original la sol. ma leen di nuyu père As ma ngoy koy ziar baax di ko bëggee. Mhm. kooku suma papa la sama xarit la. di wax nak maire ali ndoy maire de Dakar. kep ku di commerçant. ma ngi lay nuyu di la ziar di ko wax wa Sandaga ak wa Petersen son nañu amatuñ fuñ lal. Mhm. marché bi nu tej Petersen nañ ko ubbi jox leer ko. ñu laal ci ndeeg lalatuñ ci tëli bi ñu ubbi leen marché bi mhm. loolu maa ngi koy wax Aliou Ndoye di ko waxal képp koo xam ne rek commerçant nga di jaay ah mhm. waaw kii sama grand la leen rek laa seq moom jox ko cër mais bu arbitre bi soufflé lu mën a am dama lay daan mais mbéy gi kañ kañ la daan joxee nii mbër cër nag xam nga man euh, Moussa Moussa est-ce que amul lu xew ci diggante bi ndax Moussa dafa mel ni bi mu jugee Maroc avant tukki bi mbay zëmbalee na mais bi Moussa jugee Maroc ñëw taxaw aéroport sotte ko sooba mbay ci la changé communication ah, xaw ma lu xew nag waaw man xaw ma lu xew nag damay laaj du ma saytaane nag damay laaj <laughs> waaw auzu billahi mi shaytaan rajim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sant ñaari waajur ñu ngi ñaanal sunu waajur yal na yàlla yeesal yërmande sotti ay leer ci bàmmeelam bi fi des muy sunu waajur bu jigéen yàlla na fi yàgg lool ànd ak wér di ñaanal suma sëriñ sëriñ Babacar si yàlla ñaay dokk ay leeram di kilifa di naan di nuyu kilifa diine ba Touba Tivaouane Ndiassane Nimzaat léew na ñaseen nag ñëpp bàyyiwuma kenn di nuyu ñëpp nag ñëpp ki diine bu fi nekk maa ngi leen nuyu tamit di nuyu ñu fi teg ñu assistant fi nekk ñëpp assistant yi fi nekk assistant yi fi nekk di nuyu ñu ma àndal ñëpp bàyyiwuma kenn suma yaay maa ngi koy nuyu bu baax baax waa kër Seck Seck maa ngi leen nuyu baax jër nga jëf ba sunu ma sunu baay Pape Seck maa ngi leen nuyu baax di nuyu champion fi nekk yëpp kaw see maa ngi koy nuyu suma suma suma xarit suma doom nday yàlla na ko yàlla defal ndam li ma ñaanal yàlla nga ko am ñu bokk ko jibile ko ci ñu fi nekk ñëpp ah. di nuyu asan bu baax di nuyu Malick Thiandoum di nuyu bour ñaari buur sax la waaw di nuyu waaw di nuyu sunu bay, sunu bay as as as as as naw borom dukumaan ñu koy nuyu baax sama ñaari bay yi tok ma ngi nuyu baax baax baax a baax wuli ambassadeur Kara ma ngi nuyu yàlla na def ay dara yalla na def jamu wuli waaw lima la waxoon rek Cobra bi kenn nanako motax ko moo tax mu commencé moo tax mu fecc dama nan nana su ma nga may ma nan ba doyal waaw bur lu wax. non dara xew ci diggante bi. mbay zëmbalee la mais bi nga jógee Maroc est-ce que amul lenn lim doon njort. non nit ki moom lu la def rek fu mu la teg foofu ngay tegu rek. Hmm. waaw jox na ma cër. ah man boog dégguma fu ma waxee lu naqari quoi. Hmm. xëy ma dégguma ko wax dëgg yàlla. te yow jaaxle woo ci loolu mbay guy gi musta jox ko cër bi. non non non non non jaaxle nag ma yàlla yàlla nattu na ma si dara. Hmm. man mbër moo mën a dajeeg Moussa Ndoye da ngay yaru ànd ak Moussa Ndoye rek. ndax lu tax parce que si nit la loolu si nit la musuma ko dégg ma musuma ko dégg max lu ñaaw musuma ko dégg ma wax leen maa ngi nuyu waaye rax bu baax a baax. man damaa gis lenn. non si waxtaan am na. c'est que mais dama gis man combat bi. non ñaar ñii dañuy naxante. man dama gis ñaar. waaw Moussa ci biir géew beneen affaire la. Mbaye ci biir géew beneen affaire la. Ah, ah, comme ah, la ma gis mu wax ko ci la ma gis mu wax ko ci vidéo yi Assane posté ak lii bokkul. waaw mais man dama gis combat bi combat bi daf ko jaral jaral la. waaw mais amateurs yi jàkkaarloo ñun di ñu seetaan yaraax yónni la yàkkamti la moom bawal yónni ko yàkk yàkkamti ko. et puis trois ans yaraax bëgg nga takk combat bi war ngeen indi doomu aadama yi de. li indi doomu aadama yi loolu loolu ñoo koy liggéey. Uh-huh. mooy li ñuy wax rek combat bi combat yaraax la. ko moom man maa ko garan luñ ci mën a séntu ci combat bi. xeex tosaan xeex non lan. day xeex la ñu wax. di ngeen xeex bëri dóor waaw bëri dóor la ñu wax. mais nawuñu bu du bëri simple. ndax dóoroo ba sa loxo bi métti nii ah. di mais di ngeen ko safal. Ah. dina saf combat bi mën nañ cee jàpp loolu léppay am. xeex sa léppay am léppay am léppay am incha allahu rabbi ci lu mu war a jeexe na loolu loo gis li ci bëri lay jeexe mais mun a jeexe ci xeex ah loolu yàlla moo xam mbay gi foo yaakaar ne combat bi war a mën a jeex loolu yàlla moo xam maa ngi nuyu Cheikh Thiaw sama doomu nday sama xarit maa lambaay Mor Diouf jib seen maa ngi nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi siin sama gars yi commerçant yi dañoo dem siin ñoom Dame Cissé laat Cissé maa ngi yu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm waa tëmbal glace gi lu ko waral waa Ritres Medina man Ndakaaroo may topp ak Bawal waaw fier nag d'être bawol bawol ah doomu bawol laa waaw teg ci doomu ndakaaru mm-hmm. maa ngi nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi ndakaaru fukki peñ ma ni waxal ci combat bi boo yëpp a ngi waaj combat bi père kii man ak moom suñu combat jarul wax ju bëri ah lu tax kii bu arbitre suuflee na daw taxaw fële ah nga ni bu arbitre wàccee loxoom arbitre bi na suufle rek daw taxaw nee kii maa ngi moom duñ bëri juróomi minute bu taxawee da ngay ah. da ngay yaakaar mu daw. non daw mënta am mën na def ay pexeem war wër loo yi mais man prix lu mën a am. mbay guy gi est-ce que xam nga. fii noo góoma de. maa ngi lay reposer chaque instant question boobu. mais dafa mel ni bàyyi wax xel li may wax ñun bëri nañu léegi su léegi ñu dugg ci suñu ñaar fukki combat mhm. xam ne lépp stade lañ ko bëree ñun ay làmb jaaxalatuñ mbër moom expérience ngay bëree expérience ak yooyu amul ama làmb lu fi am mm. liggéeyal gëm sa bopp doole li ne ci yow nga gëm da nga jàpp ni yaa ko ëpp doole bi nga ko gisee ëpp doole ak yooyu loolu buñ jàppandee tey boo ko xoolee da nga gëm ne ko mbay ko gi yaa ko ëpp doole wala ëppoo ko doole Mm-hmm. Moussa Ndoye jàppul tardé. non non loolu wax noonu. dama ci dama ci d'accord. dañuy daje. mbay dafa dafa dafa jël combat bi def ko ci cinq minutes man góobuñu àgg cinq minutes. ah bon non loolu loolu passé na man maa nekk nit ka xam ne ma romb rek romb naa ko. li sama kanam mooy mbay gi moo ne sama kanam. mais nee na gëmul moom man mii di wax gëmul moom mat cinq minutes. waaw lu tax dañuy daje. Hmm? bu neexee yàlla dañuy daje. bu ñëwee nga ñëw bu ñëwul nga ñëw. non dañuy daje moom daje moom day am moom. waaw dafa am laa xam ne man nit si sa wax rek laa man li ma wax li ma wax rek dama koy def. Hmm. dafa waat ni day day ñëw ma gëmloo ko ne ko damay dañuy daje. waaw ma waaw waaw ba ba booba. mais vingt ans yu bawal. waaw vingt ans de bawal man. attends vingt ans yu bawal. waaw jox ko micro ñu tuddee ko ñu tuddee ko Abdou Aziz. Hmm. bu Alaaji Aale. ñu tuddee ko ku mag. lépp làmb la vingt ans di lépp di làmb. Assane Assane ak Aziz ñoom ñaar booy seet bawal. Assa Aziz Assane Aziz Ndiaye dafaa teg benn tànk. parce que waajuram di ko jur muy Khoudia Diop. boo gé boo demee Bawol fekk ko fa ca la bokk. bis boobu nga koy bëree dayo bi. ci mobilisation fan ngeen ci toll. bu neexee yàlla dinañ ko indil lu mu bëgg ci mobilisation. nga xamul tax drapeau Aïda Aïda Mbodj ah. Aziz Ndiaye non drapeau Aïda Mbodj ci boppam. waaw man maa bëri naa ko bisoo la ñu ma tuddee ndaanaanu ndaanaani. ah maa ko reporté bisoo maa ko bëri Lamine Malick Thiandoum. maa ko reporté moo ko reporté mm-hmm. kon tey mooy li ñuy wax rek. ñi nga xam ne ñoo war a feesal bis bi. monsieur le maire Babacar Mbengue. honorable député Mbengue Mbor. DG Alsane Thiam suma rek suma xarit suma frère suma lépp. Ahmed Dramé. moom Saliou. maa ngi koy woo di woo waa Île de Saloum yëpp ah, pour ñu ñëw. waa Ndiosmone Fimela yaayam Diofior di woo waa Simal waa Ndangaan waa waa Marloj waa Mar Fafa Mar Saloum waaw di waa Gambul di waa Palmarin. di wa waa Kaolack di woo waa Kajoor waa Mexe waa diaspora bi yep ma len wo di Serigne dour maa kay wo di Serigne sen Abakara Cerno Wakaana borom etats unis Mansour borom Mansour borom etats unis di woo Teranga maa kay wo tamit baax a bax di woo Omar Omar transitaire ablay borom borom etats unis di woo Ndiaye Teranga waaw di woo laay laay turki di woo Mamboy Kan sumu jigen waaw di woo sama Mamboy Kan sumu jigen Sidi Bass di woo pap Diouf diwo woo Modou Kébé Touba sama xarit sama gaañ di seigne Abdallah Diouf mang ngi koy woo tamit Adama li borom impédiment ak pap Diouf mang len wo di suma xarit suma frère suma lepp mu nek bisam bobu drapeau bi nga tuddé man sax dama waroon ñew participer ci ta inshallah rabbi dina ko ci fétal bama xam fétal nako ci mom si kante Kaba Kanté di woo ñu balmo ma ñu balmo ci tour bi Jamil Nour laa ndey sa Touba waaw maître lay sen mang koy Fall Keba mang wo Keba kante wat di woo di woo Maguette Seck di woo borom mari Maguette Seck borom maris El Hadj Daouda maa ngi koy woo ak Xaali Dieye capitaine Yaraax yëpp jël ñëw bi yëpp tekk si loxo Babacar Tall waaw di Xaali diwoo woo ñëpp tamit Alsane DG DG Alsane Thiam maa ngi koy woo bu baax a baax maître Wele maa ngi koy woo di woo bébé Sey doomu maître Sey Ousmane Congaan maa ngi koy woo di woo Ndongo Faye Pape Diouf borom canal Adama Ly maa woo di woo la Diallo Kët maa ngi woo bu baax a baax Bawol Bawol yëpp maa ngi leen woo di waa Gagny monsieur le maire Gagny Gueye monsieur le maire de Yara di jaale seen xalifa xalifa Gagny Gueye gi di leen ñaanal waa Ndiassane di waa Baqu Baquli di woo waa Makan Baas waa waa Ndiagane di woo ñëpp di leen wax sama xol sedd na di waa Kër Mbaye Fall fukki penc ak ñaari bàyyiwuma kenn le maire Babacar Mbengue le maire monsieur le la yóbbu ngaa yow. waaw sama xarit moo fa nekk. temps ngi dem nag. di waa Yarax ah, ah. per per ah. combat boobu la ñu uh-huh. waaw waaw waaw kon de dinaa si am émission bu neexee yàlla bu di woo waaye rajo yëpp fan ci maa ngi nuyu sama papa sama xarit Abdou Aziz Alé Ndiaye kooku ko xam-xam kook man waaw ragal péete nag day xañ a wërsëg mm. sa waay woon na ko di ko wax ay affaire mu ne ko mais sama booy ngay bëreet mm-hmm. teewul woo ma ko woo ma ko non defal ndànk rek bi nga ko di génne sarax xar mu weex non non woo nga ko bëgg mu motali la non déglu ma rek njëkkam ci wax waaw déglu rek du lu ñuy toog ci télé wala bu fekkoon dafa am sax su fekkoon dafa am boobu déglu fekkoon am non dañuy waxtaan dañuy waxtaan dañuy waxtaan bu fekkoon non bu fekkoon dafa am xam nga oui moom la non dama la wax rek mën na la jàppale ma deux millions waaw amul amul problème parce que yaa ma gën a xam ragal waaw mais waaw mais damay wax rek na ma nuyul mère Fat Sow waaw sunu yaay dama la koy baax a baax a baax a baax baax dama la koy nuyul de ñun dafa am boo xam ne yaraax la dëkkoon am fa doom ay doomam ñu ba léegi dëkk suñu biir dëkk reefan boo moom xam na ci dara am na suñu mbokk boo xam ne moom la bëggoon takk. moom Moussa Ndoye. non ah ko demal ah, dajale ji li nga ma ah, matu. mbay mbay mba. non déglu rek dama lay wax laa lay wax déglu wax laa lay wax. maa ngi lay wax wax. xam na foo njëkk a dem bëgg soxna déglu rek. mbay bi nee na demal job ba ci waaw demal job ci kanam. mbay maa ngi nuyu nag. képp ko déglu rek may ma tuuti maa galeen maa ngi nuyu sunu maire maa ngi nuyu sunu maire maire de Réfane Djib Thiaw maa ngi nuyu maire de Réfane Djib Thiaw maa ngi nuyu maire de Réfane Djib Thiaw di nuyu Amet Dieye sunu maire sunu xarit di ko wax mu jàpp ci xar mu weex bi sunu papa Daouda Sarr maa ngi koy nuyu bu baax di ko wax mu jàpp ci combat sunu papa Barajon nag mention spéciale di wax képp kuy jàppale mbay guy gi rek maa ngi lay ziar di la bëggee di la ñaanal jàmm di nuyu képp ku naan yokkal ma jaay di nuyu it képp ku deretu bawol bawol daw sa yaram maa ngi lay bëggee di la ñaanal jàmm. Moussa. waaw fépp foo dug dug naa foo ko raw. dëgg la lépp loo gis ci àdduna yàlla xale la ciy ànd te man dama di xale te dafa am ñu topp sama ginnaaw. waaw yaa may dégg. Mhm. yaakaar ma gëm ma am lu ne sama ginnaaw balaa nga cee xam dara nag. bu samdee mhm. di nga ne booy bii lii est man naan ne. parce que àddunaay waaj combat bi dereti bawol bawol ñi muy daw seen yaram ñëpp a ngi waaj combat bi waxuma nag daw laa mbay loo waaj. waaw loo waaj loo waaj waaye rek yaa ngi laaj. mbay déglu ma li nga bëgg li nga bëgg a a dégg fu ma la jàpp. Mhm. lamb ji jeex. Hmm. barke Serigne Bamba loolu wax amut. <laughs> waaw fu ma la jàpp lamb ji jeex barke maam Seera Fall loolu wax da nga koy bu dee bëgg nga bëgg nga dégg dëgg. waay bu nu jàppantee nga xeeb sa bopp. barke yàlla mu dëgg. billaahi wallaahi bu nu jàppantee nga xeeb sa bopp. wax nag Moussa yow yow da nga naan say affaire rek ñëw taxaw. yow loolu bu ma la jàppee di nga xam ne lépp dëgg la man du ma jàpp nit muy rëcc. bi bu dem ci wetu saako nag di fa bëri taxawal ci digg bi ñu bëri jàpp la daan leer mbay di nga tëdd mosuma niil ci lamb mosuma wër wër loo lu leer laa lay wax maa la bu doole maa la mën barke seexul xadim loolu nga amut te bu ma la sax maa ngi négocié boobu ba léegi non négocié oo négocié jaam jàngalee nag barke gën a saf na saf na métti pour ma wax la maa la bu doole maa la mën barke seexul xadim waxoloon bu arbi suuflee nga xam ne lépp dëgg waatal rek ñu ne sa ginnaaw di la. li la bëgg déglu. waaw xale yooyu ne sa ginnaaw déglu. waaw li la bëgg li nga bëgg dina am. yooyu ne sa ginnaaw di la cox. waaw barki Serigne Bamba waxuñu la dëgg. yow xale non du ma tudd tur bi mais dama la bëgg a xamal ne ñoo ñu àndat wala ñoo ñu la dëgg te balaa nga ci xam dara ñu bëree ba pare. bu ñu bëree ba pare ci ngay xam booy bi te yow xax fi mu ne nii nii. respecté nga ma yow sa bopp boo wéetee déglu ma rek génn xool dugg ruq jegaat nga xam ne ki nga am am nga ngandi combat non yow yaa am combat bu rëy rëy rëy rëy kii nga am du caaxaanut ci lamb fooyew ma ko man man sama man barke sewaay mag mu yow nga dem ba ñëw naa waaw loo nga yaakaar dama man mag mu dem ba ñëw ak xale bu loo nga yaakaar mbay loo nga yaakaar arbitre bu dëgg sa kaw laa jëm te billahi bu ma la jàppee lamb jeex merci beaucoup ñu bëri loo merci mais cinq minutes cinq minutes mënoo ko billahi maa dàq bëri dàq bëri lépp dëgg la alxuraanu kariim lan nga mën